d'accord Lamine euh, am naa inquiétude boo xam ne foog ma laaj la ko euh, tey gis nañ la plupart des victimes euh, yi nga xam ne ñoo leen war a indemniser mhm. Pastef la ñu bokk te d'après lu ñu wax dañuy indemniser à la hauteur du domage maanaam bu dee dañ la tëj injustement génnee la du bokk ak ki nga xam ne dañ koo tëj mu jële ci feebar am foofu handicap bari na ci ak ñi nga xam ne dañ fa jëlee beneen feebar. Euh, te bu ñuy indemniser nga jàpp ni est-ce que dinañ mën a indemniser ñëpp parce que quand même na. Hmm. est que loolu mënul indi ay xaj ci biir euh, Pastef. man jàpp jàpp ma ni mën na indi ay jafe-jafe que euh, ñëpp képp ki xam. mën na indi frustré aussi. waaw bon mën na jàpp mën na fi frustré parce que jàpp naa ne ñi nga xam ne jàpp nañ jàppoon nañ leen ci condition yooyu parce que képp ku dugg kaso. am na loo xam ne ñu ngi koy woy certificat d'élargissement maanaam soo duggee kaso sooy génn dañ la jox benn papier bi nga xam ne mooy wane libéré nañ. libéré nañ n'est-ce beneen bi mooy euh, loolu dafa li ko ëmb mooy le ministère de la justice. Mm-hmm. kon képp ku dem kaso. Mm-hmm. ministère de la justice. Euh, xam na ni yaa ngi ci registre euh, tribunal. Mm-hmm. kon loolu tamit du jafe-jafe beneen bi mooy le partie en tant que tel nit ñi jàpp ñoom. amoon na benn accompagnement aussi euh, def nañ ko de saluer en passage euh, Fatima Meng mu yore euh, commission sociale bu parti bi moom képp ku génn kaso xam na ni génn nga kaso mais également accompagne la de telle sorte que bi nga génnee ñu mën a régler say soins médicaux xool ba xam amoo yenn jàngoor yeeg yooyu noonu orienté la si benn structure sanitaire mhm. boo xam ne di nga mën a def say soins. Mhm. kon état bi suñu demee ba ñu tel toll ci indemnisation wala régler. Euh, problème yi d'une manière générale am na foo xam ne mën nañ fa jaar te du am ay jafe-jafe sans ñu mën a bett kenn parce que problème yi ñu si am jafe-jafe dañoo bëri am na ñoo xam ne demuñu kaso am nañ ci ay mhm. problème perte nañ seen liggéey peut-être am na ñoo xam ne euh, voilà dañoo exilé woon bi problème amee am na ñoo xam ne aussi euh, am nañ ay blessures yoo xam ne ba nii nii ma yoo xam ne man démb rek démb am naa ñaari jeunes yoo xam ne mën a mettre en rapport pour ñu dem faju ji ci condition yooyu noonu te demuñu woon kaso. y avait y avait aussi boo xam ne Euh, amoon jëloon na bal ci tànk ba léegi-léegi dafa am jafe donc je pense que dommage yi trop mm-hmm, mais li koy régler état xam na fu mu war a jaar pour régler loolu noonu mm-hmm. te jàpp naa waaye ndimbal yaa ngi bëgg a yeex de waaw moo ngi bëgg a yeex su loolu tamit lu jar a wax la parce que mm-hmm. <laughs> gars yi ñoo ngi jooytu ah ñoo ngi jooytu bu baax a baax ñu ngi naan les ex-détenus vraiment ñoo ngi jooy parce que am ñu ñàkk seen liggéey ak ñu feebar waaw dem na am na ñoo xam ne dañuy dem ba naa leen waa yéen li ngeen doon sonn ci combat bi tey ah li ngeen doon sonn ci xeex bi. Mhm. tey fii la leen mbir mi toll kañ la ñuy régler seen problème kon ça di dire que mu ngi tas ay kër. Mhm. n'est-ce kon suñu sañoon euh, vraiment loolu mu doon lu gaaw parce que am na benn jàpp naa benn date am na benn date bu ñu fixé woon. pour régler situation boobu noonu peut-être daa am ay contretemps. Mm-hmm. peut-être bu bees la tamit. il faut comprendre am tuuti patience. voilà te aussi damay ñaan sama sama mbokk exodote nañ ñu xaw am tuuti patience. Mm-hmm. mais contexte bi ñu nekk nii nii jëm si tabaski bi vraiment su leen mënoon dimbali. ñu dimbali <laughs> ñu jënd xar <laughs> waaw. ndax ñu mën a tabaski.